véritablement pour que la paix sociale revienne mais la paix à la limite elle est intérieure aussi nit ñi seen xel seen xol seen xalaat dal loolu mooy wax ji en fait c'est-à-dire que fi mu nekk l'affaire Ousmane Sonko c'est une affaire qui est en cours en justice je crois waaw buñ ko teg fii comme à la limite du menu nañ jéem a seet gi fi nekk la paix sociale doit revenir dans ce pays et le Sénégal pour ne pas dire le pays doit recommencer à aller kooku moom na je considère que ni yooyu mooy problème cruciaux yi pour revenir nag à une chose Youssou yow ñoo bokk ëtt bi ñu jàngee génne fa bien sûr ëttu sëñ Mamour Ndiaye la tudd Ndar mhm. pour simplement dire que ni quand tu considères la symbolique et les exigences pour ne pas dire les contraintes ñu teg par rapport au Covid raxas leen seen loxo takk leen masque bu leen nuyoonteet yi et cetera gu mel noonu je que ni fi nekk de façon cartésienne et rationnelle c'est une aberration ah oui xam nga pourquoi mm -hmm. nous n'avons pas attendu le Covid pour di raxasu pour di yesal pour di sellal pour di jàpp dëgg loolu dëgg nous n'avons pas attendu on est né à l'intérieur de ces choses-là boo seetul bokkoo ci diine bi ñu bokk boo dul yeesal bokkoo ci le masque comporte je dis que c'est par urbanité le masque na protège de rien du tout concept yu ñuy jël moo di fi mu nekk se confiner se confiner quand même dafa am lu muy signifier moo di kee day def fekkee dem fekkeem dem fale ñu jël daal la distanciation distanciation moo di da ngay toog fee ba toog fii yu su toog fii euh, Babacar toog na la et cetera le soir ku nekk uuf sa jabar wala sa jëkkër ñu lay wax cas communautaire cas communautaire nous vivons en communauté on mange en communauté moom dañu añandoo en communauté reerandoo en communauté déjeunandoo en communauté seetaanandoo ay séries yi en communauté seetaan football en communauté ak ah, ci ñu lay wax kenn du fa sëqat kenn du fa yuuxu kenn du fa xam nga lan moo war je dis que ni cette histoire la elle n'est pas rationnelle elle sort du cartésianisme c'est une histoire boo xam ne c'est entre une bataille pour ne pas dire une opposition entre Batin xam nga fan la ñu waroon toll Youssou subhaanallah walhamdulilah wa laa ilaaha illallah allahu akbar sunu dara matul. donc ban plateau ma déggee dañoo juum ci gestion bi. on s'est trompé sur beaucoup de moo tax ma wax ni si nekk il y a eu des des des et il y a eu effectivement de très mauvaises décisions sur sur beaucoup de choses. Macky Sall pour l'aider il faut lui faire comprendre que ni ñi ñi ko wër gënuñ ma kaa xam. mais bokkuma parti am bokkuma fenn damay faral di wax ni fi nekk man maa ngi si tefes gi entre maire agité et agité mooy parti politique yeeg man je préfère être sur le rivage mais sañ naa parce que nous partageons ce pays avec le président de la République par la grâce de Dieu moo fi toog nous avons la possibilité et le devoir impérieux bu daal ni fi mu nekk fi nga teg sa tànk baaxul je considère que ni fi mu nekk tey ji le seul conseil qu'il peut lui donner moo di fi de lui faire de lui faire revenir de toutes les illusions pour lui faire comprendre que peuple s'est annoncé et a posé sur la table des exigences il faut savoir les décrypter. parce que je vous ai entendu quand il je vous compris d'ailleurs il n'a euh, a compris ou pas. Babacar le président Macky Sall la jeunesse mais est-ce que cette colère là cette grosse colère ñu gis ci mbedd yi danger pour je je dis même pas le pouvoir mais pour la société pouvoir opposition tout le monde est-ce que tey ñun ñëpp waruñu mesurer le danger bi nga xam ne moom la les jeune la constitué leur colère en tout cas. waaw effectivement c'est-à-dire que au-delà de cette affaire Sonko c'est un danger pour tout le monde parce que boo gisee li am bi mbir mi euh, nu mu tëti donc tàkkee. Mm-hmm. il n'y a pas que peut-être les militants et les citoyens qui sont frustrés. am na ci ñeneen ñoo xam ne dugg nañ ci parce que ñi nga xam ne dañ doon toj magasin yi. Mm-hmm. di yi. di toj këru jàmbur wala di violer ay nit ñooñu du ma jàpp ne sax ay militants politiques lañu mooy ñi ngay wax cette jeunesse désœuvrée cette masse boo xam ne boo génnoon fii tey yaa ngi leen gis ci mbedd yi ñu ngi toog oisif amuñu dara lu ñu def bu ñu déggee ñu ne tël rek ñu jóg parce que di ciy profito hmm. loolu yaakaar naa ne ça pose quand même un problème d'éducation boo xam ne bu ñu ko réglé wul. Hmm. tey naka la ñu war mën a def ba dellu nit ñi ci fànn fondamentaux yi ci wàllu citoyenneté ñu yar nit ñi ba nga xam ne lu mënti am nit ñi dinañu xam tey lan mooy le bien public. Mhm. ne xam ne lu nit ñi mer mer mer waruñoo nu mu tëdd yàq li nga xam ne ñëpp ko bokk moom. mais loolu bokk sous ce rapport waaw waaw la sous ce rapport laay wax ne donc mbir mi menace na pour ñun ñëpp. Mhm. problème boobu buñ ko réglé wul. mais également dafa am loo xam ne aussi donc dañ ko mënul occulter xam nga tout à l'heure sama grand Youssou wax na lu bëri je crois que autour donc du corona. Mhm. mais xam nga nit ñi dem nañu ba nekk par exemple ci moom ay restriction des libertés et cetera ñu ne nit ñi toog leen seen kër bu 9h nit ñi tëju leen man maa ngi dëkk fii ci VDN bi dama lay jox rek benn exemple damay toog suba buntu kër jàkkaarlook pont bi. Mhm. à deux h wala minuit nga gis. ay oto nit ñi di doxi seen soxla di la romb à un rythme boo xam ne dama naan mais est-ce que réellement ñu ngi ci couvre fa wala déet. Mhm. alors que yow doo ne nit ñi tëju leen seen kër rek ñu rek ñu seen problème bu dépense. alors que nit ñi nga xam ne xëy na les gens les en haut la ñooñ ñoo mën a am autorisation hmm. ñooñ ñu ngi dem seen soxla di vraiment man dama koy xool daf may jaaxal doo toog espace boo xam ne trois minutes yoo xam ne doo gis oto romb la alors loolu je me suis dit est que on peut contraindre les gens à vraiment se terrer dans les maisons amuñu lu lekk et cetera que nit ñi ñu ngi dem di doxi seen soxla loolu hmm. je crois que donc ci problème bi nga xam ne aussi même bu fekkee ne xëy na corona bi mën nañ koo peut-être duut baaraam mais am na ni ñu gérer corona bi aussi indi na yokk na frustration yi euh, ñaareel ba mooy la question également donc de l'emploi su wax na ko tout à l'heure ne le gouvernement a créé des emplois parce que chaque année c'est vraiment donc des milliers peut-être donc de de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi mmh, plus de 300 c'est vrai mais man nit bu fekkee ne da nga ñëw d'ailleurs ça c'est même pas propre donc à à Macky Sall régime yi fi mas jaar depuis Diouf ba ci Wade keeg Macky les politiques d'emploi ont été inopérantes day la ñu ay fonds de d'insertion fonds de promotion en ANPEJ on appelle des gens yoo xam ne xëy na amuñu la formation appropriée qu'il faut jox leen xaalis mais bu yàggee ñu gis na mbir mi daanu yaa ngi fàttaliku opération maîtrisard mhm. boulanger car rapide yi et cetera et cetera bu yàggul président indi fi daaw DER qu'est-ce que la DER a réglé bërki dem bi nga xam ne affaire euh, euh, Barça ak Barça bi am na am na structure bu bees boo xam ne wax na ko ne dinañ ko créer mhm. alors donc léegi je me pose des questions quand il revient nous dire que je crois que ci fan dina def un conseil interministériel consacré à l'emploi dina débloquer 300 milliards Euh, donc sur hmm. pour ñu mën a nu mu tëdd vraiment donc jàppale xale yi je pense qu'il faut qu'on puisse s'arrêter mm. réfléchir sur les politiques donc d'emploi est-ce que choix yi def vraiment donc c'est pertinent est-ce que c'est opérant est-ce que na tax tey ñu régler donc la question donc aujourd'hui des jeunes euh, beneen affaire bi hmm. mooy wax nga ko Youssou sànq je pense que question boobu xëy na daf ko xaw a peut-être xëy na répondre euh, question bi nga jëkk posé da nga ne comment se fait-il que Macky ñu fal ko en deux mille dix-neuf. oui deux ans après après mhm. lu mel ni am. alors la question qu'on se pose aujourd'hui légitimement c'est la question de la transparence des élections parce que euh, élections yi ñu mujjee jël boo seetee. Mhm. Mhm. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci ci fichier électoral bi. il y a deux millions de personnes yoo xam ne voté wuñu tu bu weesoo deux millions am na un million deux cent mille personnes yoo xam ne ñu ngi woon bi jotuñu seen carte

donc aujourd'hui il faut se poser la question moom leer de la gestion de nos processus électoraux mm -hmm. est-ce que transparence ba ci war am am na ci wala amu ci loolu je pense question boo xam ne la war nañ ko lay jaar ak euh, Youssou Diallo quelque part ces manifestations là ces ces jeunes là euh, génn ci mbedd mi euh, est-ce que wanewul les les limites de notre démocratie démocratie bi ñuy tàgg tout le temps tey ji wane na ne mais moo Dieu cette démocratie la ne règle pas tous waaw foofu d'accord kii hmm. dinaa ci ñëw hmm. Eh, Babacar Babacar li muy wax noonu je crois que yow Babacar euh, booy wax waxu transparence élection dina ma jaaxal daal. parce que ah, pour ma defal nànk dafa déglu ma déglu ma. Mhm. yaa ngi ci processus yooyu parce que dama ragal ni waa Pastef yi espèce su terrorisme médiatique <laughs> physique ak les agressions qu'ils font verbales et autres dafa impacter beaucoup de gens particulièrement ci société civile. ak une bonne partie de la presse. ba nga xam ne ñu ci bare ñu ci bare bu wax dëgg. Eh. Youssou ce n'est pas non non defal ndànk defal ndànk dégg non non vraiment ce n'est pas ma déedéet defal ndànk damay ah. argument la manqué wu ma respect kenn ah, dama def un constat dama def un constat constat boobu nag parce que quelqu'un comme toi processus électoraux yi fi am yëpp yow tu étais partie prenante. mais loolu moo tax ma wax. waaw moo tax boobu li ma wax dama ko vérifier dama am ay éléments. et puis loolu dama naan dama naan loolu ngay wax. Macron kii Macron a été élu moins d'un an après les gilets jaunes génn bloqué France lu ëpp 6 mois. élection ba jaar na yoon wala jaarul yoon. bërki dem bi États-Unis nit ñi bañ nañu résultat élection ba dugg ci biir Sénat bi salfaañe ko. Capitole rey ay ci Capitole bi rey rey ay ay ay ay forces de l'ordre ay nit dee ca. am na benn interview bu mu def dee dans le soleil bu ñu génn dans le dans dans les dans les dans réseaux sociaux. Mm-hmm. pour dire que démocratie système la boo xam ni. c'est à parfaire et à, à, à imaginer tous les jours benn démocratie matul des Rousseau bi mu koy wax dafa ni c'est le moins mauvais des systèmes il n'en demeure pas moins qu'un système là mhm. avec l'évolution sociale l'évolution historique avec les contradictions sur le plan économique et autres mais démocratie bu nekk dafa am nu muy configurer configuration bu bees donc foofu foofu laa ci yem beneen bi mhm. question bi nga ma posé. pour nga pour ma pour les limites de nekk di wax nii. waaw suñu mhm. Eh, bi ci njëkk mooy. parce que je bu ñu génnee ci élection un président régulièrement réélu euh, ñu jékki-jékki deux ans après nit ñi génn ci mbedd mi daanaka dem banaan nañu nañu abal ça veut dire quelque part que euh, cette démocratie là euh, majorité bi ñu ko ni ñu xam ne démocratie majorité bi ñuy wax am nay limite quand même. ah gis nga foofu nag. gis nga dem am nay fay voilà. demal naag demal naag gis nga nga gis nga foofu. da ngay nangu pour que démocratie am. il faut ñu am ay démocrates. ay démocrates. Abdoulaye Wade était foncièrement un démocrate. Mm C'est pourquoi Abdoulaye Wade a su attendre 27 ans pour ñëw au pouvoir en dépit de tout ce qui s'est passé. Mhm. du ma jaar ci kaw ay cadavre pour pour dem vers le palais. Mm -hmm. mais yow dafa bosse ñetti année d'opposition. Diouf a joué le jeu euh, aussi ak Wade. Euh, non je veux dire que il faut avoir des démocrates a que Diouf avait plusieurs occasions de le détruire il ne l'a pas. gis nga keroog bi Wade defee sa sa lettre mhm. avant que. ñu euh, euh, l'autre di ñibbi chez lui j'ai été la première personne à faire un post mm et un tweet pour saluer la position bi Ablaye Wade am dans cette situation mais mën loo ni tu te déclares anti-système mhm. maanaam les règles du jeu démocratique actuel nangu woo ko parce que voilà le problème la question qu'on doit poser à Pastef mm -hmm. est-ce que Pastef est un parti démocratique ou non je est-ce que doucement doucement tu vas répondre. Mhm. je je te pose la question. bien sûr est-ce que le système démocratique aujourd'hui en cours. Mhm. avec ses lois avec ses règles avec ses règlements avec son système électoral est-ce que Pastef nangu na loolu. Mhm. c'est ça le problème c'est la première fois depuis nee naa les indépendances qu'un leader politique refusait de déférer à la justice. ni da ngeen di lever sama immunité et je sais que dans la phase de l'enquête bu la gendarmerie il y a aucune loi qui s'oppose à que nga dem wuy ji. liberté loolu bokku ci. les juristes ne sont pas d'accord sur ça. loolu bokku ci non non non. boo jëlee texte ba c'est un débat de juriste. dafa ndànk texte ba. dafa dafa dafa cité nommément éléments yi nga xam ne moo ci bokk. beneen ba nga ne da ngeen di lever sama immunité parlementaire ñu lever sa immunité parlementaire nga ne noonu du ma wuy ji parce que juge sangam juge sangam procureur bi dugg na fii génn na fii. du ma ba mujj gi Sénégal gépp a daje ci yow mujj la sax wañ sa loxo pour nga dem wuy te ba ngay wuy ji gis nañu na nga doxale ba mu indi la nga xam ne indi na ko ba mu jigi les gens commettre yenn erreurs yi jël la yóbbu la fu ñu la war a yóbbu et cetera mu mu mu mu indi crise bi nga xam ne mhm. kooku il faut reconnaître effectivement qu'au niveau du pouvoir il y a eu à certains niveaux am na ay errements mhm. am na des erreurs nous le reconnaissons et le président a bien pris note maintenant situation c'est le plus important et et et donc la grande question aujourd'hui mhm. est-ce que Ousmane Sonko est un démocrate ou non est-ce qu'il accepte le système républicain mm -hmm. démocratique et même politique bi nga xam ne moo nekk en cours au Sénégal il faut que mu répondre à ces questions allez-y voilà. ok allez-y Euh, maintenant, je mm. pense euh, a terrorisé personne, n'est-ce pas <laughs> loolu non non Youssou ko ma ne a terrorisé personne. ok ok ñun de journaliste je pense <laughs> maintenant maintenant aussi xoolal monsieur Diallo je vais maintenant je vais porter ma casquette pédagogue. Hmm. pour répondre à ta question. de l'enseignant et je vais faire un cours sur la démocratie. moo tax question bi nga laaj dama lay tontu te mu may il faut nga may ma développer. allez-y xam nga. la démocratie la définition la plus aboutie bi ñu joxe Abraham Lincoln moo ko jox gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple loolu mooy askan bi ñoom ñoo war a tànn ñeneen di jiite. Mhm. dama koy rappelé moom mii gis nga soo demee sunu constitution du Sénégal bëgguma Oregon parce que dañ ne ñun on est des terroristes quoi faisons un cours de droit un peu soo jëlee constitution du Sénégal dans son préambule dañ ne le peuple sénégalais souverain. Mhm. programme de l'État du Sénégal d'être un État moderne qui fonctionne entre. une majorité qui gouverne vous une opposition démocratique nous et un État qui accepte l'opposition comme un pilier fondamental de la démocratie maintenant pourquoi voulez-vous réduire l'opposition à sa plus simple expression ça c'est la première question yéen a ko xam damay rappeler rek manque jële si constitution du Sénégal maintenant yéen a vous voulez réduire l'opposition à sa plus simple expression et puis réduire l'opposition à la plus simple parce que y' a l' état y' a nation l' opposition au milieu tey jii lépp askan bi di kaas opposition ba koy jël transmettre ko fële bés boo leen dindee nag opposition bi yeneen askan bi yeneen daje. Mm. maintenant est ce que Ousmane Sonko est démocrate oui monsieur Diallo. parce que la démocratie dafa am huit piliers moo tax démocratie parce que ñun dañu bëgg le respect et le maintien de la démocratie démocratie dafa am deuxième état de droit troisième une opposition démocratique quatrième la séparation des pouvoirs cinquième un parlement libre sixième euh, liberté de la presse septième la pluralité huitième élection bu nekk dama lay développer bi ci njëkk mooy les libertés fondamentales gis nga tey jii gis nit di évoluer ba développer la démocratie boo mooy un. deuxièmement l'état de droit foog dama lay damay damay damay damay damay delloo rek ci préambule constitution de ne le peuple encore une fois le peuple sénégalais souverain proclame euh, le respect et la considération de l'état de droit dans lequel l'état et les citoyens sont soumis aux mêmes règles de droit sous le contrôle d'une justice indépendante ah ah applique-toi ça à ton leader. non bàyyi ma eggali monsieur Diallo non monsieur Diallo xam nga ah, euh, bon. non dama dama lay. Euh, ah, ah. Euh, non non non insiste là-bas insiste là-bas. non là tu es dans la théorie. <laughs> ma lay expliquer la pratique c'est autre chose. je serai je serai dans la xoolal je serai dans la facture non je serai dans la facture léegi xoolal je serai dans la facture dama koy rafetlu rek. dañ fekk taxi nañ ko appliqué. léegi léegi ñu jël élection.

ils ont perdu le droit électoral actif parce qu'ils ne pouvaient plus voter. Ils ont perdu le droit électoral actif parce qu'ils ne pouvaient plus être votés. Les 25 autres candidats registrés ils ont perdu le droit électoral passif parce qu'ils ne peuvent plus être, être votés. c'est factuel. Nous sommes maintenant, nous euh, sommes le Parlement. Qu'est-ce que tu as dit ñoom ñoo fi taxaw naa man maay député <laughs> man député Macky Sall la xam nga loolu kenn mën na koy parce que boo nekkee député nga dem si peuple bi la tey ji boo ñëwee mhm. da nga représenter la volonté populaire mais député bu ne bu demee bay voter en fonction de ses intérêts en fonction de son cas foofu noonu xam nga indi on sera plus dans une démocratie mais dans une oligarchie tu sais jàngaluma la dara la démocratie c'est le pouvoir appartient au peuple mais lorsqu'on est dans l'oligarchie le pouvoir appartient à un petit nombre mooy député nekk foofu naan député Macky Sall la ñu dem beneen mooy du ma si dund ay c'est-à-dire exécutif législatif yooyu noonu. xam na ne fii amul séparation séparation des des des pouvoirs. Mhm. loolu du ma si sax ñëwaat parce que. quand on a une même mais am na lu Youssou wax su ma sañoon yoon nga leer nga leer mooy mooy pourquoi justice indépendante boobu ngay wax seen leader bëggu ci soumettre. non mais bien mais attendez xam nga moom nee na. Mhm. Ousmane Sonko bëggul dem. mais Ousmane Sonko dafa jël tànkam dem gi nga justice indépendante boobu noonu. Mhm. justice indépendante boobu monsieur Diallo même les membres du Justef ñoo ko njëkk xam nga juge dem dafa nekkoon si biir génn. ne j'ai démissionné d'une justice qui a le problème de Téliko gis nañ ko c'est pas nous mais waa député ñoo ko. les magistrats si boppam eux-mêmes Téliko mais il fait que interpréter directive bi bi CEDEAO joxoon par rapport Khalifa Sall loolu la ko jox donc justice bu amee problème si bopp. ñoom ñoo ko war a mais Ousmane Sonko am na droit ne gëmuma tel ou tel juge. mais n'empêche que dem na wuy justice danañ ko gàddaa. ba ñu wàññee loxo nañ ko. ba ñu wàññee loxo bi ba ñu wàññee Sénégal gépp a fa daje. non dama la non même non non xam naa ko non moo tax xam na luy démocratie ah. la démocratie mooy lan une presse libre mais ce que vous avez fait à Walf SNTV c'est du zèle. Sénégal génne di leen traité alors que la presse libre monsieur Diallo fait pas de la je vais être factuel parce que kii moom ma ko chaque fois su ma génnee benn teg damay jox un élément factuel. Hmm. le signal qu'on a coupé de Walf. et de Sen TV ensuite envoyé leen ay mise en demeure. di leen hmm. traité d'irresponsable. ça ne fait pas partie de quelque chose qui va renforcer qui peut renforcer. Amadou si nous avez envoyé des mises en demeure sax ñu mën a comprendre. Mhm. mais on on l'a coupé on a on l'a appris en même temps que vous. voilà moo tax moo tax y a rien avertissement ni rien. moo tax moo tax vraiment pour répondre à la question de monsieur Diar nee naa ko ñu on connaît les huit piliers qu'il faut pour renforcer la démocratie. Mhm. mais est-ce que vous les acceptez. Ah, d'être dans le jeu. accepter les contraintes les contraintes du jeu non non xam nga non sérieusement ñu pour segg non xam na il faut que ça fekk xoolal tontu woo de ah mais attends tontu woo ci question bi te essentiel mooy mooy l'égalité des citoyens tu sais la liberté le pilier de la liberté mhm. c'est l'égalité si n'y a pas d'égalité y a pas de y a pas de liberté. mais ah, égalité bu ngeen nanguwul ni citoyen Adji Sarr ma jógee fale ci Île du Saloum yi. Oh, ak Ousmane Sonko muy troisième ci présidentielle bi. Mhm. ñoom ñaar ñoo yem ci kanamu yoon bu ngeen nanguwul loolu nanguwu leen li ngeen di wax yëpp. ah non mais su ah, après ñu ñëw ci élection. nga sur la démocratie. oui les huit piliers de la démocratie jël ak exemplaire yoo xam si ñoom la bokk. Hmm. c'est eux à eux qu'on a demandé. c'est à eux non non mais c'est à eux qu'on a demandé. est-ce que Adji mais Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñoo bokk même droit Adji Sarr porte na la peine Ousmane na ko. mais attendez. Hmm, jeex na alors euh, Elie Charles alors est-ce que li ñuy li ñuy wax fi yëpp en fait je pense ah que ni on a bien diagnostiqué le problème mais celui qui doit apporter les réponses mooy le président de la République bi nga ko déggee mu wax keroog est-ce que am nga impression que ni effectivement il nous enfin il a compris ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci mbedd mi. Euh, en fait euh, damay wax ni le discours qu'il a tenu. Mhm. c'était pas le discours qu'on attendait. du moins moi que j'attendais. Mhm. il y a une situation de fait. Le pays a flambé, des enfants de ce pays sont tombés. La panique s'est installée partout, il y a eu énormément de bruit et de fureur et qui ont abouti même à faire de sorte que le président lui-même finalement se rende compte que son peuple a faim. C'est lui qui l'a dit. xaw ma ne woon nit ñi dañu xiif. C'est-à-dire que Moi, j'attendais à ce qu'ils fassent un discours apaisant au lieu d'être dans des projections d'emploi ou de je ne sais pas quoi. C'est-à-dire mm-hmm. qu'en fait, mm-hmm. à circonstance donnée, réaction ou réponse donnée. C'est-à-dire que carrément, moo tax may wax sànq réellement an baq moo des il faut véritablement qu'il fasse des choses xam ne ay mesures qui apaisent. Parmi les mesures qui apaisent, il n'était pas seulement question que Ousmane Sonko retourne chez lui. il y a eu des enfants de ce pays yoo xam ni ils ont exercé leur droit de de d'enfant d'une démocratie mm-hmm. et qui sont sortis et qu'on a embastillé pour l'instant ba tey ji mm-hmm. l'acte minimal déjà pour faire de sorte que le pays recouvre cette paix qu'il n'aurait jamais qu'il n'aurait jamais dû perdre effectivement qu'il doit préserver de tous les jours moo di fi mu nekk que tous ces gosses là yi nga xam dañ leen jàpp tey ji ñëpp delluwaat seen kër le président de la République c'est jamais trop tard nit la il lui arrive de faire des erreurs imperfection mooy nature nit il refait s'il le faut un discours pour réellement revenir sur la question parce que c'est pas honteux de revenir sur des décisions je crois qu'en fait foofu lañ toll pour yow au-delà du discours il faut des actes ah les les actes nag minimaux bokk na si effectivement de Guy Marius Sagna au dernier tendu ou pelé de la République mais qui se trouve être un Sénégalais mm-hmm. ñëpp delluwaat seen kër jàmm commencé waat installé parce que je n'arrête pas de le dire et vous n'arrêtez pas, de le prouver sur le plateau au-delà de nos appartenances idéologiques nous sommes un peuple de cousins et de voisins yéen a ngi nga sa dënd mais fi nekk yéen a ngi ree di kaf plateau tout de suite loolu lay demee et cetera bi mel noonu je crois qu'en fait on nous attend sur ces choses-là et à la limite tey jii l'être le plus isolé le plus esseulé de ce pays Macky Sall le tout c'est le président de la République je crois finalement Euh, une excellente chose que le que le président ait cela c'est-à-dire que qu'il soit loin de tout tout ce que euh, mais nous sommes en train il, de faire il, là il, les partis politiques ak seen i contentieux être vraiment au-dessus de tout ça c'est pas une mauvaise chose le président a été a été à la limite euh, vicié si je peux utiliser ce terme-là à partir du 25 mars 2012 quand les gens ont voulu faire des règlements d'un viatique un viatique de ce concept-là gagner ensemble, gouverner ensemble. Oui. On ne peut pas être quatre ou cinq capitaines dans un bateau. Par la grâce de Dieu, moom la ñu faloon il a fait dans un romantisme qui lui a coûté toutes ces choses-là tey mm-hmm. Le président de la République devrait être en ces moments précis à des prises de hauteur et des reculs yoo xam ne véritablement. Mm -hmm. il agirait en monstre froid. te yu bëri du ci dugg tey jii. agir en monstre froid euh, discours. je vous ai compris il l'a dit mais ce qu'on n'a pas compris mooy quand il dit je vous ai compris il a il dit ah, Macky Sall wax nañu ne nous sommes une même famille une famille unie euh, suñu ay divergence warul yi wax ñu tax ñu yegg fenn fi mais non seulement Elie la mi ngi koy rappelé am na déjà ñu nekk ci kaso bi à cause de cette histoire là oui, mais li ñu comprendre mooy le lendemain de son discours jusqu'à fi ñuy waxee nii il continue à arrêter des gens il paraît qu'on à ramasser des c'est pas bon waaw euh, Moustapha bala nga may foofu rek ma revenir un peu <laughs> en arrière pour répondre à mon grand frère euh, Youssou di ko wax ne li ma wax xam nga man depuis presque mën naa ne vingt cinq ans yi nii maa ngi liggéey vraiment euh, sur les processus électoraux di ko analyser di ko jàng te les règles d'intégrité qui vraiment fondent aujourd'hui la transparence d'une élection vraiment n'était pas réunie ci élection présidentielle yi ñu jógee te loolu xëy na c'est pas l'objet du débat waaye mën naa ko démontrer bon maintenant lu weesu loolu xam nga wax ji li muy bari bari yëpp dafa am benn question boo xam ne tey dañ koy xaw a mel ni occulté dañ koy occulté la question du troisième mandat parce que tey en filigrane coow li ci am lii yëpp sur l'histoire nu mu tëti donc les attaques contre les opposants cette affaire Sonko en filigrane l'affaire du troisième mandat daf ci feeñ parce que lu tax ma wax loolu quand le président de la République a fait son remaniement ñëw indi gouvernement bu bees boo xoolee la première salve qui a été tirée jóge ci ministère de l'intérieur en direction donc de l'opposition c'était dirigé contre Ousmane Sonko yaa ngi koy fàttaliku c'était par rapport à la campagne de Nemmeeku Tour pour la mobilisation des fonds dès que le ministre s'est installé tasanteeg Pastef donc di def sa campagne de levée de fonds le ministre a sorti un communiqué pour évoquer une loi qui est obsolète déjà à deux heures du matin kooku déjà ça a été la première salve bi xam ne donc tiré a vu le tollé. que ça ah, xanaa non da mais daay bu ma dagg nag nga bu ma dagg. quand même waaw bu ma dagg Youssou bu ma été politique nous avons tous été politique. Ah, mais je ne suis sur le champ <laughs> partisan. c'est clair bokkutuma ci benn parti néew ma ci champ partisan. mais nous sommes des politiques si nous concevons la politique. comme vraiment un moyen de transformation sociale des conditions de vie des populations. Mm -hmm. Donc tout ce qui se fait doit nous intéresser. Absolument. Ñun analyser. Wax naa la par exemple le communiqué qu'on a pris donc contre Pastef et même d'autres par rapport à cette levée levée de fonds. Mhm. ñu jóge ci loolu quand même dama wax ne Ousmane Sonko c'est quelqu'un qui en l'espace de 18 mois diggante législative ak présidentielle yi il est passé donc de zéro virgule à pratiquement pour cent wax naa ko keroog ci benn plateau ma ne ñi nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu science politique war nañu xool loolu phénomène boobu analyser ko du dëgg alors de telle sorte que les gens peuvent comprendre parce que ni ñi fii ci ay disons donc euh, perception la ñuy doxee bu ñu gisee lu mel noonu am par rapport donc à la campagne de levée de fonds hmm. ñu gis ne également aujourd'hui mbiru Adji Sarr bi nit ñi jël nañ ko bon kooku du ma ci dugg vraiment yëkkati ko yëkkati ko bëgg a focaliser foofu. mais nit ñi li ñuy jëkk indi mooy ah. on a vu ni ñu def nu mu tëddi Khalifa Sall ni ñu def ko Karim Wade est-ce que c'est pas la même chose donc qu'on peut faire donc loolu perception la boo xam ne sénégalais yi donc ñu ngi koy am moo tax xëy na ñu ci bëri jël euh, li nga xam ne donc moom la ñu moom la ñu position bu ñu jël. maintenant sur la question. bi ma hmm. mujjee posé le le message et les arrestations. waaw que hmm. effectivement bi président waxee. on a compris que le discours bon quelque part était un discours donc d'apaisement mais sous ce rapport là loolu dañ ko waroon vraiment euh, euh, euh, méngale ak ay jëf dès le lendemain mhm. c'est-à-dire que tey ñi nga xam ne jàppoon nañ leen ci ñoo xam ne vraiment c'est des bases yoo xam ne franchement mu taxawul fenn mhm. immédiatement ñu bàyyi leen mais li ma gis ci manifestation yi ñu ñëpp on a suivi à la télé mhm. que des fois les policiers ou les gendarmes dañuy yore seen i caméra ak seen di di filmer nit ñi sans filmu caméra yooyu la ñuy jël di leen exploiter di dem di fekk nit ñi seen kër des gens qui ont participé aux manifestations di leen jàpp. man je pense que loolu on parle aujourd'hui donc de 300 ou 400 arrestations je pense que loolu bu ñu bëggee vraiment comme on est dans une phase de consolidation de la paix sociale. Hmm. il faut que loolu donc vraiment ñu mën ko arrêter. ensuite hmm. pour man je pense que aussi il faut que ñu. Euh, bàyyi justice daal def liggéeyam ci wàllu nit ñi nga xam ne par exemple dañ leen doon utiliser ci manifestation yi parce que kooku c'est une grosse question on a hmm. vu par exemple les gens qu'on a utilisés dans les manifestations on a parlé de gros bras de nervi euh, de nervi quand le ministre de l'Intérieur a sur la question lu mu hmm. wax dafa ce sont des policiers en civil or ñun ñëpp on a vu hmm. à travers des vidéos des caméras que nit ñooñu duñu sax ay alkaati jege nañu donc loolu que tey il faut non seulement libérer les gens pour que ñooñu nga xam ne dañ leen utiliser photo nañ leen ak seen i yooyu non seulement yoon mën leen dal mais ñi nga xam ne également dañu rey ay nit ci tayeef parce que on a vu les films hier dans seen émission balance gis le film qu'on a montré donc Parcelles mm-hmm. avec vraiment de façon Euh, vraiment comme je dis sciemment ñu jël fetal juti ko ci nit tiré ko yooyu je pense que aujourd'hui c'est là on doit s'orienter pour que ñi nga xam ne vraiment mbir mi laale nañ seen loxo takk nañ ci vraiment yoon dal seen kaw Youssou Diallo le président de la République am benn période bu mu war a gérer muy période bi ñu nekk 2021 ba 2024 euh, gis nañ ku mel ne Ousmane Sonko par exemple euh, am neuf je crois recommandé comme ça yu mu teg ci taabal ji bokk na ci que le président dise clairement qu'il ne se représentera pas c'est un que euh, tey jii euh, euh, xam nga nan la la président de la république war a def pour que apaiser réew mi fii ak 2024 au moins sinon il ne travaillera pas. non kooku da ngeen ko foog rek. Mhm. da ngeen ko foog rek. il va apaiser waaw président bi ngi ci apaisement. Ah. mais dama la bëgg wax ni la. Mhm. li ngeen di wax ci apaisement. Mhm. suñu demoon seen logique ba au bout affaire Adji Sarr Ousmane Sonko dañ koy faase état de droit du fonctionner noonu. état bi dafa am ay règles. dafa am ay lois. am na ci ñoo xam ne jàpp nañ leen avant événement yi am. waaw et jàpp bu préventif la. préventif <laughs> bo defal ndànk defal ndànk. est-ce que c'est acceptable non non non defal ndànk defal ndànk may ma may ma ma may ma ma expliquer. oui parce que ñooñu ñu jàpp. Mm-hmm. imaginel tey jii ñooñu nekkoon ci biti ci événement yi am parce que am na lu xew. Mm-hmm. et loolu xew bés procureur wala ministre de la justice. dana ñëw wax li xew yëpp. Mhm. parce que ministre de la justice gëw ma ni wax na loolu mu wax. la ministre des affaires étrangères wax ko sur France 24. Mhm. par hasard. mbëri am déedéet du question mbër terrorisme. am na question yoo xam ne sax dem na ba attentat à la sûreté de l' am na yu xew. dañ mhm. dem ndànk dañ dem ndànk. et l' état de droit est là et est te képp ku nga xam ne ña nga yoon ñi dem sàcc ci ay këru jàmbur. ñi dem toj ay magasin jàmbur. ñi dem lakk ay station essence. ñi dem violer ay doomu jàmbur ñi def loolu ñi dem rey ay nit ak yu mel noonu mais ñoon dañ koy dañuy maslaa au nom au nom de de de de il faut faire l'apaisement mais mais dafa naag dafa naag dafa naag dafa naag <laughs> dafa naag <laughs> dafa naag tey jii ku ci amoon sa boutique wala nga am sa magasin wala nga am sa station d'essence mhm. wala nga am sa njaboot ay nit dugg ci biir kër ga salfaañe kër gi ba pare violer say doom mais discours apaisement bi ngeen dox daan dana ko wax donc faut que nit ñi dellu si xel l'état de droit est debout mm. et procédures yi nga xam ne war nañ ko def te mu war a mener à une justice loolu moom faaw dana am à commencer par ki nga xam ne moo soo ko bi hmm. kooku dama bëgg que kenn bañ koo bañ koo bañ ko natable l'état est debout et l'état utilisera les moyens maintenant nag y a un contexte qui est là parce que aussi gérer l'ordre public mm c'est aussi gérer l'intérêt général il y a des situations yoo xam ni l'état peut être amené je ne dirais même pas faire des compromis, mais peut, être amené des fois à lever un peu le pied. Alors, le, le temps que la situation revienne dans une situation normale. mais li ma bëgg wax foofu. pour pour terminer. Mhm. dama bëgg aussi suñu société civile. tëdd njaaxinaay. <laughs> tëdd njaaxinaay parce que non non dama waxuma la société civile xoolal dañ ci taxaw. Babacar Babacar may ko Babacar Babacar mhm. euh, euh, société civile ñi ci nekk ñoom ñi ci ëpp. comme man ay homme de gauche lañu. seen c'est une culture de gauche xëy na ils pensent que le messie qu'ils attendaient dans la gauche pour le grand soir c'est peut-être Ousmane Sonko. c'est peut-être ça qui ah, explique peut-être cette espèce de d'empathie que vous avez vis-à-vis de l'autre Youssou yow la yaa ko xalaat mais voilà voilà vraiment le fond de ma pensée donc euh, pour pour pour jeexal foofu maintenant maintenant même même kii euh, euh, li pour daj pour apaisement bi am à travers une plateforme yoo xam ne taxoon nañ ko dem seeti parti yi waxtaan ak ñoom nous avons contribué fortement à l'apaisement de la tension waxtu bi mi ngi ñuy dab bu baax a baax fi may fi may daaneele mooy le président bu leen lee j'ai bien compris comprendre parce que Macky Sall président Macky Sall kenn éliru ko pour mu continuer di politique xam nga lan moo tax ñu élire ko. Mhm. pour mu faj soxla sénégalais yi soxla sénégalais yi nag fii mu toll nii. Mhm. daanaka ñaar la. mooy xëyu ndaw ñi ak jigéen ñi ak seen mbirum entrepreneuriat ak formation professionnelle. Mhm. beneen bi mooy secteur informel bi nga xam ni corona bi daf ko salfaañe. d'accord ñu jàppale leen ba ñu taxaw. comme ça réew mi mën a gën a jëm ci su ma déggee Youssou Youssou Diallo li muy wax mooy l'état de droit reste debout mhm. et que ce qui s'est passé ça va pas rester impuni euh, ay xale ñu bokk ci yéen ak ñu bokk ci des mouvements de la société civile ñu ngi ci ñi ngi ci kaso bi euh, man su ma déggee Youssou wax ba pare dama naan on va vers d'autres combats là euh, on est à la mi-temps moo tax ma ne actuellement le terroriste sur le plateau c'est lui <laughs> parce que mooy attaque société civile parce que xam nga lan <laughs> tax boo gisee dëgg nga ne dëggaa ngi nii mais est-ce que société civile dafa bu ñaar nit jotee est-ce que société civile amul droit ne yow yaa tooñ mais attendez le PASTEF qui fait son nemmeeku tour. Mhm. génne cent vingt cinq deux heures du matin le ministre de l'Intérieur qui sort benn communiqué. di menacer naan PASTEF argent sale mais ku nekk mën am sa lecture tey jii keneen ku nekk société civile mënoon na ne le ministre l'Intérieur a raison. keneen ne oui n'a pas raison non, actuellement c'est lui qui est en train de terroriser la société civile je suis désolé monsieur Diallo comme yow aussi maintenant apaisement xam nga tey jii nee na je vous ai compris oui moi je me dis que il a fallu il a fallu maintenant que neuf mois mu door a comprendre plus tard quelles sont les aspirations xam nga nee nañ gis nga euh, dafa am benn contrat social bu ñu rompre entre l'État et la nation xam nga danaan président nga xam ne ñi ëpp si ñoo la votel parce que dañ boo ñëwee mhm. di nga jaamu seen soxla ñu jël seen pouvoir jox la ko ku nekk sa pouvoir mooy la mooy sa carte jël seen carte dugalal la mhm. a jaamu seen askan moo tax gi nga état nation dafa war a nekk benn que l' état c' est un dafa nekk benn xam ne dafay gérer les intérêts de la nation sénégalaise mais yow boo demee benn instant yow lépp loo def defoo ko ngir sa askan mais forcément di nga dina di nga détacher l' état et la nation boobu maintenant peuple bay peuple bay jëg soulevé wu ne en tout cas kii ñu faloon daal ak engagement yi mu defoon yëpp ñun gis nañ ne respecté aussi dara donc loolu mooy la loolu mooy le contrat social a été rompu ñi génn kenn génnewu leen mais dañoo sentir le contrat social a a a, a été rompu maintenant yow boo nee da ngay boo boo nee da ngay apaiser. Hmm. parce que man j'aimerais quand même qu'on me dise fan la arrestation préventive nekk dans le code pénal man bëgg naa mu génneel ma ko. si. ban article am na non non wax man bëgg naa honnêtement mu wax ma ban article code bi waxtu mi ngi jeex waaw bëgg naa moom dama koy pose benn question rek après mën na envoyé par SMS par SMS naa jox sama numéro yow bàyyi sa nijaay après boobu mën nga mën nga ñëw dinaa ñëw waaw ban article code final moo fi génne arrestation arrestation préventive mais ok mais moom mooy terrorisé waa société civile actuellement moom mooy terrorisé. donc donc apaisement mënul ànd ak ñii. non apaisement instant bi y' a plus de cinq cent cinq cent jeunes ils sont ils sont ils sont ils sont arrêtés. Mhm. d'ailleurs sax am na ñoo xam ne c'est sur erreur ils ont arrêté des gens yoo xam ne génnuñu sax seen kër yi mais loolu mënul ànd ak apaisement. D'accord. Et Richard, le ah. président de la République, il nous dit, oh, je vous ai compris, mais euh, on continue arrêter des gens. Youssou Nène, l'état de droit reste debout et que ça ne peut pas rester impuni. Man, euh, quand j'entends ces, discours-là, je me dis, euh, dañoo mi-temps mais dañuy dañuy dañuy dañuy demaat combat. waaw en fait on a xam na nag fi mu nekk. on est dans un champ et c'est un champ politique. à de certains moments. Hmm. ndumbelaan lay nirool. j'ai l'habitude de dire que ni fi nekk <laughs> Macky Sall est dans ses rôles. il déroule sa feuille de route c'est pas forcément la feuille de route de l'opposition ou la feuille de route d'une frange importante de population lui il a envie de consolider un pouvoir mm-hmm. il a envie effectivement d'atteindre ses objectifs qui ne sont pas forcément des objectifs de, de tout, du Sénégalais mais mi ngi ci biir boppam on ne peut pas lire dans ses, dans sa tête mais boo ko xoolee sur neuf ans tu sais que ni quelque part c'est quelqu'un qui dort avec au moins deux livres le livre de Trotsky et le livre de Marx quand il agit de certaines manières tu as tu as la certitude que fi mu nekk il est dans ce que Marx appelait les idées dominantes sont les idées de la classe dominante mooy teg ay mbiram bu ngeen ko daaneelee parce que ay ndëndëm la mu xool nan lay defaat il recule et il est dans il son an... il va revenir effectivement parce qu'il a envie quand on gère un pouvoir on a prédestination de gérer ce pouvoir-là de ne pas le laisser tomber le fond du problème moo di je crois que ni hmm. il y a des lectures à faire parmi les lectures nag il y a au-delà de cette de ce fait Ousmane Sonko il faudrait pas limiter cette histoire-là à dafa dem si salle de massage Ousmane Sonko est devenu depuis cinq ans un mal nécessaire en démocratie il faut faire avec ganaaru kenn nenu ko sénégalais yi ñoo ko falal seen bopp il va falloir effectivement faire de sorte que mu perdre crédibilité perdre crédit mais pas n'importe comment ils ont joué parce qu'on est dans un landerneau ils ont joué ils ont perdu je crois qu'en fait le pouvoir a les possibilités et les libertés pour aller voir nan la mais je crois que fi mu nekk li gën a important temps di que le président de la République ne se contente pas de dire j'ai compris j'ai entendu j'ai compris il faudrait que fi mu nekk cet cet entendement là cette compréhension là mu mmh. convertir qu'en destin moo di mm-hmm. il y a une opinion publique maintenant qui a sur qui a dans laquelle effectivement Ousmane Sonko a surfé Amadou. le le mot de Moustapha est bon. Ouais. mais c'est l'occasion qui crée le larron. il a profité d'une situation pour montrer carrément que fi nekk lii la war demee fii la war toog lii la bëgg et fee fee la jëm. léegi il appartient à l'État de tirer toutes ces leçons là moo di fi nekk savoir qu'on a une opinion publique très forte. et que la première des mesures nag parce qu'il appelle à la paix sociale moo di fi nekk ñi nga xam ni. parce que a le der le pouvoir et tous les der le dernier mot et tous les pouvoirs mhm. mu daal ni fi nekk lii la ñu wax lii laa bëgg lii laa bëgg nag fi mu nekk dañ koy def parce que dafa contribuer à l'apaisement moo di xale yëpp nañu ñibbiwaat seen kër mhm. ñu jéem a xool comment il est possible effectivement les tenants et les aboutissants de toutes ces histoires là ñu jël leen en charge correctement. Euh, Babacar Fall le dernier mot euh, est-ce que au fur et à mesure ñuy jub 2024 ak euh, cette histoire du troisième mandat bi nga xam ne ba léegi enfin ku nekk nga naan tranché nañ ko tranché guñ ko est-ce que narul waat indi yeneen coow ñu joué waat je ne sais pas une deuxième une troisième mi man ci ci li ma jàpp la. Mhm. que fii ak ñuy jëm élection 2024 xam nga am na élection locale dina fi ñëw élection législative dina fi ñëw. dégg nga temps yële au niveau am na ñoo xam ne ñëw xëy nañu daan ne nañu euh, toxal élection législative yi. ñu mhm. couplé ko ak élection présidentielle. am na ñu ko évoqué donc présidentielle dina ñëw euh, encore. Mhm. donc loolu yëpp boo ko xoolee dafay wane ni ñu ngi ci guddi goo xam ne bër sa dëggul te tey le Sénégal ne se relèvera pas. je mhm. pèse bien mon mot d'une seconde crise de cette nature. et loolu dañ ko war a éviter li tax ñu war ko éviter mooy non seulement président dafa war a continuer dynamique gu bi. waxuñu ñu teg vraiment seen tànk ci ci kaw yoon. Mhm. parce que dans tous les cas yoon dina continuer parce que keroog man dégg naa Sonko bi mu génnee li mu wax dafa ne nañu sax vraiment tëgg procès bi gaaw ñu dem procès affaire bi leer donc. wax loolu daan dama jàpp ne non non ragaloo dem procès quoi Youssouf vraiment dañuy waxante rek. Hmm. ak suñu axulaay. tala tala boobu rek la non non non il faut nag qu'on positif. ñu bañ aussi charger nit ñi. Hmm. parce que loolu nag effectivement mooy indi problème ak euh, posture yenn nit ñi di braqué nit ki nee na vraiment ni ñu dëgg procès mbir mi dina leer je crois que donc il faut le prendre au mot na procès bi dem mais l'essentiel président mi nga xam ne tey moom moo yore cëggal guyam. Hmm. xam nga wax na déjà ne je vous nee na sax ci fan yi dina recevoir les mouvements de jeunes pourquoi le président ne s'élèverait pas plus encore les leaders de partis politiques dans le contexte actuel foofu lañ doon xamee grand mu woo leen comme ni mu defoon bu muy initier dialogue national bi ci corona bi ñun ñëpp ñu woo leen parce que lii xew ni yëpp mais ñun ñëpp personne n'est plus patriotique nu mu tëdd quiconque kenn bëggul réew mi tàkk lii ñëpp a ko naxar amul benn leader boo xam ne pour man boo ko yeewee muy opposition di pouvoir di nga dem wax ko mu ne la lii rafetlu na ko parce que ay doomu Sénégal donc ñoo ci dee donc na woo nit ñi waxtaan ak ñoom ñu seet nu ñuy vraiment donc euh, euh, dalale réew mi maintenant il faut sérieux les choses ñi nga xam ne dañ leen jàpp vraiment arbitrairement injustement ñu bàyyi leen mais ñi nga xam ne dañuy def tuuma parce que dañu def njombe parce que dañu rey nit parce que dañu violer que dañu toj yëfu jàpp ñooñu vraiment ñëpp d'accord nañ que dañ leen war a jàpp vraiment teg leen ci yoon maintenant fi may <laughs> daaneele Moussa nga may ma hmm. mooy société civile Youssou dama lay wax ne gis nga bi mbir mi commencé ñun ñëpp organisation de la cellule yu bëri lu mat une trentaine daje nañu taxawal benn kuréel bu ñuy wax plateforme jàmmi réew mi ñoom Alioune Tine ak ñeneen ak ñeneen ak doyen Mazit ñëpp ñu ngi ci waxtaan nañu dem seeti vraiment les parties prenantes dem nañ seeti waa kër Ousmane Sonko dem seeti euh, ndaw si Adji Sarr à travers son avocat El Hadj Diouf dem seeti ay kilifa dine dox nañ ci wax ci wax aussi suñu position franchement donc man nekkatuma tey ci posture yow xam nga moment bi ma nekkee ci politique bi damay assumer samay position mais nekkatuma wala mais nag terewul opposition bu ñu nekkee ci dëgg nga ne ñoo nekk ci dëgg bu ñu juumee nga wax leen ko ñoom dañuy bañ ba dañuy wax naan sax société civile des fois il nous traite d'être des les béquilles du pouvoir. alors de du côté du ah, pouvoir dañuy wax ne yenn que ñun nous sommes des encagoulés je pense que Youssou yow vraiment waruloo tomber quand même ah, ci kii boobu. non non dafa décrypté ah, <laughs> di wax je ne suis plus dans la politique. non non on jamais. non de expliqué de tous les jours sont des problèmes politiques. Eh, non expliqué naa ko je ne suis plus euh, sur le.